yi eh, di rot ndakaaru sax ak ndar nekk ci bopp gox yi nga xam ne ñoom ñoo gën a lorule eh, ci kon napp eh, lap yooyu di am li ko waral nag am na ñu jàpp ne ndakaaru mi ñu jàpp privatiser ay plage am maanaam léegi tëj ko ba nga xam ne ñu bëri amatuñu ci accès bokk na ci li ko waral dinañu ko waxtaanee loola yëpp ak Abdou Khadre Gaye moom mooy njiital ONG EMAD di yëngu bu baax a baax ci lu soxal aada ak cosaan bu collectivité Lebu Abdou Khadre ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci dem ak Tay waaw maa ngi lay fay euh, soxna Fathiam di la seetloo man itam sama mbégte ci partage micro bi ak yow waxtaan ci li soxal askan bi hmm. ñu koy waxtaane ci kër yi di ko waxtaane ci ëtt yi hmm. alors ni ma ko waxee Abdou Khadre xaaj bu njëkk bi nag tey dañu koy jagleel actualité bi euh, mooy euh, collectivité lébu euh, ñu bari jàpp nañu ne moom moo jóg woote ngir ñu woteel lébu yi ci élection locale yi ñu dëkkmal pour Ndakaaru notamment alindooy ak Abdoulaye Diouf saar ñoom la ñu ci cité loolu nag indi ñu ci ñu bëgg a xam démb fan la collectivité bi yemoon ci wàllu politique ndax dañoo mës di wax ne nañu taxawu seen ay doom wala ndax dañ leen mës a taxawu ci wàllu politique ñu jiite ndakaaru ak gox yi ci nekk yow mi jiite euh, ONG EMAD di yëngu ci aada ak cosaan bu collectivité bi ñu ràññee la lool ci fes penc bi nga xam ne yaa ngi koy amal euh, loo nu mën a wax ci loole euh, taxawaay li bu ci waaw xam nga taxawu sa doom taxawu sa njaboot taxawu sa askan loolu kenn mënu ko tere kenn ku ne sañ nga taxawu sa communauté wante mbir mi kay mooy ana naka nga koy taxawoo ndaxte nettali nañ ma Mbaye Diagne ci démb moom ko nettali Blaise Diagne ba mu waree dugg ci toolu politik bi dafa ñëw seet si maam Youssou Bamar mu dalal ko pencum ci mu wax ko soxlaam mu ne ko demal toog nga déglu ma mm. mu gisanteex ay mbokkam gisanteex ñoom maam ba Blaise Diagne ñëwee mu oo ndakaaru kilifa yi fekk waxtaan naa ñoom ba pare ba ñu déggoo ci kàddu ñu ne ko demal wuti li ngay wuti incha allah yàlla dina ci teg loxo ba di ko jot. noonu la Blaise Diagne tàmbalee politique gis nañu ne saa yi nga xamante ne toolu politique juddu na homme politique dina jug seeti kilifa réew mi. mu jox la conseil ñaanal la xëy na sax dig la soutien nga dem wante coow su amul nañ ko defee moo rafet am na defin ba nga xamante ni nag dafa ñaaw defin boobu moo tax coow li am wante su fekkonte ne dañu dugg ci biir ne candidat fekk la fa ngay kilifaam mu ñëw ne la man kat dama yéene def lii wala def lële bëgg nga conseiller ma bëgg nga ñaanal ma bëgg nga jàppale ma nga waxtaan ak moom ci sa biir ne nga gis ne kat ku set loxo la nga gis ne kat war nañ ko mën a jàppale nga nga ñaanal ko jàppale ko kenn du la ci yedd ndaxte nit ku nekk nag sañ nga ne diw mooy sama candidat xam nga su fekkonte ne grand sëriñ dafa ne diw mooy suma candidat kenn du ko mere. Hmm. su fekkonte ne imaam tam noonu la def kenn. su ka campagne jotee itam mu dox doxi suuf pour candidat am kenn du ko mere sañ na ko. ku nekk war nga ne mu am nga sañ-sañ ak koo mënti doon ne diw mooy sama candidat nga dox seeti say mbokk dox ci suuf ne leen jàppale leen ma diw kat man moom laay woteel te bëgg naa ngeen woteel ko. loolu mu ñu ngi koy tuddee campagne électorale mais dafa am aussi jamono. d'accord ci campagne électorale. Mhm. fu mu nekk nii ci waxu biir néeg la ñu toll. candidat yooyu am nañu sañ-sañi seeti leen di waxtaan ak ñoom kenn du ko kenn du leen yedd wax seen waxi biir nekk lu wax ji rëy rëy su dee ci biir rek lañ ko defee yoonu kenn wu ci. Hmm. mais nag taxaw sur la place def une déclaration bu mel nii loolu xëy na mës na am démb ndax du ma ne mësul am. Hmm. mais xam naa ne su doon am na démb itam ŋàññe nañ ko am nañu ko ŋàññ. Hmm. ndaxte su dee da ngay euh, nekk yaayu seex war a tëddee soo tëddeewul njaaxaanaay ci sa njaboot dina am ku mer. jamono bu mu mënti am ba élection tàmbalee am Sénégal ba léegi su fekkente ne kilifa taxaw na taxawaay boobu am na ñu la mere ci sa njaboot ñu wax ko ak ñu bañ koo wax. parce que taaru kilifa mooy mu tëddee njaaxaanaay. Mm. moo tax soo ñëwee ndakaaru euh, kilifa am na kilifa bu ñuy tuddee ndey ji réew. Mm. moom mooy kilifay fukki penc yeex ñaar. looloo tax ñu jox ko turu ndey ji réew mm-hmm. mooy ndeyu réew mi mm-hmm. ndigal bañ koy jox nag mooy xamal na yaay ndey mm-hmm. te ndey dafa war a yemele ndey dafa war tëddee ñaaxaanaay loolu daal man laa xam ci Ndakaaru waaw démb ak tey. tey nag ñi mer bokk na ci jaraaf euh, Youssou Ndoye euh, mi nga xam mhm. ne moom euh, wane na meram ndax wax na ñëpp dégg ni Abdoulaye Matar <coughs> Diop lébu gi la tooñ. kon tey mhm. da nga jàpp ne loolee ñu wax mënta engage collectivité bi yépp ndax ñu bari it noonee lañ ko déggee. non non xam nga tax mënu ko engagé. Hmm. su fekkee ne da nga jiite mbooloo. bëgg wax ci turu mbooloo mi. foog nga diisoo ak mbooloo mi. Hmm? Mhm. soo diisoo ak ñoom nag. ba ngeen tënk joxe kàddu ñu ne la waxal ñu kàddu bi nga wax kàddu gi mbooloo mi tàccu dañuy xam ne li nga wax mbooloo bee ko wax su boobaa duñ la ŋàññ mbooloo ma jël décision boobu la ñu ŋàññ su doon collectivité li bu dañu daje hmm. dénk kàddu gu mel noonu ab Ablaye Makhtar Diop grand sëriñ ne ko waxal ñu ko ab Ablaye Makhtar Diop wax ko collectivité bi yëpp tàccu kon waa Sénégal suñuy ŋàññ duñu ŋàññ Ablaye Matar collectivité li bu la ñuy ŋàññ hmm. bu leen ñu dugal ci ethnicisme bii nag li tax mu garaaw ñaari yoon mooy ne dañu siiwal ci turu collectivité kàddu bu leen collectivité joxul ñaari fóot la hmm. est que dégg nga li naa ko ñaari faute la dañu wax luñ leen wax waxloowul ba pare la ñu wax aussi du lu waxu collectivité bi dajewul fenn pour ne leen waxal leen ñu lii loolu looloo tax collectivité bi mer. kon keroog ñan ñoo daje. non attends euh, collectivité bi ñoo daje. Hmm. mais keroog xam nga lan la woon. Hmm. Euh, comité de pilotage bi yoroon activité bi man euh, comité scientifique bi ci laa bokk. Hmm. bi dox activité boobu. activité boobu ñu ngi ko dox ci fukki fan ak juróom. tuddee ko communion de la famille Lébou. objectif bi moo doon am na division bu am ci communauté lébu division boobu problème yi nga xamante ne moom la ñuy jooy yépp ci Ndakaaru tàgg juboo amul mënuñu ko saafara. mooy diggante ñaari sëriñ yi. diggante ñaari sëriñ yi ak problème mu terre yi problème mu aéroport bi problème yépp daal. d'accord ñu ne problème yooyu yépp mënuñu ko saafara tant juboo amul. ñu ne nañ def benn cérémonie de communion cérémonie boobu on va partager des messages d'appel à la réconciliation parce que mooy premier objectif bi ñu war saafara pour yeneen yi mën a am communion ku ko dégg xam nga ko di lan mooy communion xanaa ànd <laughs> donc cérémonie bi loolu moo doon objectif bi mu am benn comité scientifique bu ñu teg Ismaïla Diagne bu Wakaam jiite ko ñu waxtaan produire benn document bu ñu war liir benn résolution bu ñu war liir au nom de la collectivité lébou hmm. la communauté lébou ba ñu ñëwee ci cérémonie ba grand sëriñ Ablaye Mbatta teg veto daal ne document boobu kenn du ko fi liire ah oui oui la xoolal mu ne kenn du ko fi liire parce que yëgu ko liiru ko partagé wuñ ko amuñu avalu communauté bi pour liir document boobu le comité scientifique a dit oui man maa ko waroon lire personnellement man la ñu désigné woon pour ma liiral bi ma ñëwee cérémonie bi. Mhm. ma ne Abdou Khadir yaa ñuy liiral document bi. il a euh, son veto d'une façon ba nga xamante ne kenn rafetlu wu ko parce que président bi sax nee na meloon ni ku doon simbalam. Hmm. waaw. kon ba communion ba mujjut a jur xaajaloo. Euh, am na ñu jug ñibbi ci comité scientifique bi. d'accord am na ñeneen ñu ñibbi wante óoruma. ñu toog cérémonie bi continuer bi tuuri discours am jotee mu wax li mu wax. kon loola bokkul woon ci xew ma keroog. lan ci. waxu politique boobu. non mais bokku ci moom laa la wax communion la woon cérémonie de communion. d'accord. loolu bokku ci loolu moom moo ko wax waxam la mu porteloo ko nag toute la collectivité lébu loolu la nit ñi ñaawlu. Hmm. bi ñu demee ba cérémonie bi jeex ñu ni imaam tëjal aussi moom tam mu waxaat même chose pratiquement. kon imaam daa waroon ñëw tëj ki ñaan. <laughs> bo yaa ko wax <laughs> ndax yow noonu nga xamee imaam ah. waaw waaw waroon na wax nag waroon am na am na trois discours quand même. waaw amoon na mënoon na discours. yedd mbooloo waaye bu ñu nee tëj rek ñaan lañ cay njëkk a xalaat. ñaan la waaw mais mën na discours. après mu ña mu tëj. Mm-hmm. mais mu dugal ci discours am loola. d'accord. waaw donc moo indi coow li maanaam man li ma jàpp. Mm-hmm. mooy cérémonie de communion de la grande famille lébu lu ñu transformé en meeting politique à l'insu de la communauté lébu. Hmm. li Youssou Ndoye wax nag moom it am na sañ-sañu wax ko. moom jaraaf parce que mënuñu mënuñu jaraaf. mënuñu teg ci kaw collectivité lébu wax bu rëy bu day noonu defee ko biir Wakaam te waa Wakaam ñëwaat teew ñëpp teewuñu. justement fi ma bugg a ñëw mooy euh, tey buñ ne collectivité lébu wala communauté lébu ñan ñoo tax ñuy wax ndax jàpp nañu ne ñaar ñi jëmm yooyee symbolique grand sëriñ ak imam grande mosquée euh, mënees nañoo représenter communauté bi tey buñ ne euh, communauté wala collectivité ñan ñoo tax ñuy wax wala lana war a daje ngir ñu am foofu aussi lu ñu war a mooy lan la différence entre les collectivités lébu et la communauté lébu d'accord du benn il y a la collectivité lébu des Hmm. fukki penc ak ñaar yi. waaw c'est une collectivité lébu à part. Hmm. autonome et indépendante. d'accord. Wakaam nekk collectivité lébu à part autonome et indépendante Ngor noonu Yoof noonu Caaroy noonu Mbaaw noonu ba Tëngéej ba ba kon gox boo dem ak collectivité dëkk boo dem mu am jaraaf collectivité lébu la. d'accord. jaraaf ba jiite ko. Hmm. ndax Ndakaaru ci lébu gi fédération la. Hmm. mais fédération boobu pàcc bu nekk dafa am autonomie. d'accord. jaraaf ba ca wakaam mooy kilifay wakaam grand sëriñ mu amul sañ-sañu ñëw def fa dara. Hmm. ci jaraaf lay jaar mooy mooy kilifa ga. d'accord. léegi yooyu soo ko jëlee pàcc yooyu pàcc bu ci ne collectivité Lébu la moo tax ñu naan su ñu nee collectivité bu da Dakar rek fukki penc yeex ñaar la. Hmm. leer na. soo ñëwee collectivité lébu de Wakaam fukki pencax ñaar li tax Youssou Ndoye di kaas. Mhm. moo di ne collectivité lébu bu fukki penceex ñaar su ñëwee Wakaam di fa def cérémonie te jaraaf teewul loolu mooy lan. daa mel ni ñu dugg sa biir kër rek di fa def xew te yëgaluñ la moom moom loolu la njëkk kaas moom. Mhm. loolu la njëkk wax ne rafetlu ko ba pare nag mu rafet lu ñàkk rafetlu lenn mooy ne mbir mi dañ ko gàdduloo pas la collectivité lébu des douze penc. Mhm. mais les lébu. la communauté donc la communauté lébu. te soo nee communauté lébu tubaab jalaaw la ba ngor. Hmm. c' est le Cap Vert. te Cap Vert teewul woon. Ah. ça aussi c' est parce que pour nga wax ci turu Cap Vert il faut que jaraafu Cap Vert yëpp teew. Hmm. Hmm? waaw. ba pare jox la kàddu nag nga wax ci seen tur ñu tàccu. ñu ne ñoom ñoo wax mais dañu gàll kàddu gi ci loosu ña ko nanguwul. man man maa ngi bokk ci collectivité li bu douze penc yi. de mhm. Dakar ci douze penc yi la bokk te man yëguma fu ma joxee sama kàddu pour ñu waxal ma loolu. Mhm. te ma bokk ci cérémonie bi te ma bokk ci xew bi objectif yi du woon loola. kon dañu détourné objectif fu ndaje ma keroog. bien sûr man noonu laa ko tuddee. d'accord dañu jël une cérémonie de communion transformé ko en un meeting politique mais euh, Fatou Thiam xoolal mhm. benn mbir. Hmm? Euh, nga ne yow lébu yu ñoo wax pour seen doom nga sàpp set euh, dindi ci ñaari commune dakaar Plateau ak Yoff hmm. est-ce que loolu mooy lébu gi. waaw ah, yeneen ñu ngi fi de. xanaa su Dakar doon toog pour wax ay candidat am comme que dañu ne ndakaaru mooy tànn candidat maire yi. ci Dakar. Hmm. dañuy tànn candidat maire ci tubaab jalaaw ba Ngor ah. kon Dakar dafa naan. kii mooy suñu maire Dakar Plateau kii mooy suñu maire Médina ba 19 commune département bi jeex. suñu jeexalee département bi ñu dem yeneen commune yi nga xamante ne ay ay ay ay village lébu la. ñu ne ngoro kii mooy kii moo ñuy candidat Wakaam kii moo ñuy candidat cérémonie bi Samba Bathily mu ngi toog. te moom candidat la Wakaam naturellement. ah def na discours il a le premier discours de naa moom moo ko moo ko def. Mm-hmm. discours de bienvenue bi. Mm-hmm. ne moom mooy candidat lébu yi. Euh, Wakaam parce que lébu la de Diallo la sant wante lébu la. Mhm. waaw yaayam lébu la. waaw. voilà donc pour dire incohérence boobu. Mhm. moo lay won ne am na lu ne ci biir lu leerul mais man dama jàpp ne ba fii. Mhm. dañu juum. parce que nag xale dina juum wante mag dina juum njaboot dina juum wante kilifa dina juum. et maa ngi euh, yaakaar ne. Euh, ak coow li nga xamante ne wax bi indi na ko à juste titre parce que wax bee rëy. Mm. man mii jug naa réagir naa wax ne d'accord ma ci parce que c'est légitime. Mm-hmm. depuis presque une décennie deux décennies maa ngi liggéey pour Ndakaaru di liggéey pour Lebu gi ba ñëpp xàmmee ma ci. Mm-hmm. donc su ma teewee ci cérémonie ñu wax wax ba nga xamante ne man engagé wu ma il est de responsabilité de dire que wax ji engagé wu ma man Abdou Khader Gueye en tant que lébu en tant que nit ku yëngu ci biir communauté bi pour la valorisation du patrimoine ñu xam ma comme ni ko Youssou Ndoye defee comme ni ko grand Serigne Pape Ibrahima Diagne defee ak ñeneen ak ñeneen ñu dul lébu sax jug nañu wax parce que c'est des Dakarois fàcca foog ñu xam ne Ndakaaru c'est une communauté arc-en-ciel waaw fi mu ne de kenn moomatu ko de foog ñu xam ne ndakaaru lébu yi def nañ fi cinq cent années hmm. juróomi téeméeru at biñ fi ñëwee ak léegi foog ñu fàttali nit ñi ne bi lébu yi ñëwee ndakaaru soose yi lañ fi fekk ñu leen di wax mandeng hmm. alaaji Ngaala Gaye sax àgg na ci wax ne avant soose yooyu di fi dëkk am na juróom-ñetti communauté yu dëkk Dakar avant les soose hmm. des communautés différentes lébu yi ñëw soose yi ñenn ñi ci ëpp ci ñoom reculer vers la Gambie et la Casamance mu am ñu des ak lébu yi Ndakaaru ñu tuddee dëkk bi dëkk raw parce que ñoom dañu meree Jolof buur ba fa nekkoon nekk un roi tyrannique ñu ne bëgguñu tyran jiitañu ñu bëgguñu kuy wax ci suñu tur jiitañu moo tax ñu gàddaay ba ñu gàddaayee ñëw Masamba Kokki Diop jugee Jolof xëccoo nguur ñu gañe ko mu gàddaay ñëw ndakaaru dal ca déem ñu may ko ngóone meng mu jur jal jóob ñu fal ko sëriñ ndakaaru hmm. ñoxor fay jugee siin ñëw ndakaaru ñu accueillir ko mbot may ko soxna moo mooy maamu payeen yi tey hmm. fay bi moo sopp lu ko doon fay taabaan jool jugee fuuta ñëw ñu dalal ko cëriñ mu jur Eliman Diol Eliman joor nekk Serigne Ndakaaru kon c'est une communauté ouverte mhm. moo tax bay Mbaye Thiam wax ne am na ñu ci d'accord am na ñu ci d'accord que lébu du ethnie moo tax ñu wax communauté lébu d'accord un mélange c'est un melting pot moo tax ñu tuddee woon ko dëkk raw bañ ko tuddee dëkk raw le pays refuge fu ay meree ci Sénégal ñu tooñ la nga war a gàddaay da nga naan xaaral ma dem Ndakaaru mhm. parce que foofa yaa une démocratie bu ñu ñëwee Dakar nag ñu ne bugg bugguñu buur parce que buur a leen taxoon jógee Jolof. Mm-hmm. bugguñu buur. ñu ne lan la ñuy def ñu ne dañuy sos ay pénc mooy assemblée. Mm-hmm. ñu créer l' assemblée des jàmbur borom kër bu ne ci dëkk ba tu membre de l' assemblée. Mm-hmm. ñu créer l' assemblée des frais assemblée jàmbur yooyu nag moom moo fal borom ndombay baat ak borom ndombay tànk. borom ndoom bay baat dañ koy wax loo mu wax. Mhm. moo tax ñu ne ko ndoom ba baat. Mhm. mooy sëriñ Ndakaaru. d'accord borom bay tànk dañ koy dox loo mu dox. Mhm. kon ñoom ñëpp si waawu collectivité wala communauté bi la ñuy wéy. waaw. amuñu buur moo tax ñu ne lépp amul kilifa. mais imam ratib ci discours am fàttali na ko. fàttali na daf ko fàttali ba pare juum. daf ko fàttali moom mu fàtte far. <laughs> ba muy tàmbali dafa ne bu kenn ñu falal suñu maire kenn du ñu tànnal suñu maire ñoo koy tànnal suñu bopp mais c'est vrai mm. mais moom loolu muy bañal président mu bëgg ñu ko def dafa def confusion entre la fonction coutumière et le militantisme politique mm. et c'est une faute lourde c'est une faute grave kon ñoom am nañ sañ-sañu far fu leen neex waaye lii ñu def amuñu ci sañ-sañ leer na amuñu ci sañ-sañ mm-hmm. léegi nag ndakaaru googu lébu yu ñëw communauté yu bëri fekk leen fa ay ethnie yu bëri fekk leen fa ñu def mélange bi mu nekk lébu. Mm-hmm. mais nekk na Afrique euh, capitale de l' Afrique occidentale française mm-hmm. bi mu nekkee capitale de l' Afrique occidentale française moo doon capitale guinéen yi malien yi mauritanien yi ñëpp fi moo doon seen capitale mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ñëw daje fi y deux décennies de cela déjà communauté libano-syrienne bi ñëw communauté malienne bi ñëw communauté guinéenne ñëw communauté ñu créé un pot soo demee Pàkku Lambaay. Hmm. Moustapha Ndiaye Thiargane ba ko sànci en 1902 la ko sànci. bu centre ville. waaw mais ñooñu mënoon ne du ñu ay Dakar waa. Hmm. donc ñooñu ñooy Dakar waay tey. beneen leeral bu am importance. ndakaaru waxuñu ba ñuy fal Jal Diop waxuñu ñoo ngi fal Serigne Lebu suñu ne woon sëriñ Lebu. Hmm. kilifay Lebu yi rek lay nekk. mais dañu ne Serigne ndakaaru parce que xam naa ñu ndakaaru ba muy sanc dafa ubbi ay buntam. Mhm. te tëjugu ko ba tey képp ku ñëw ñu adopté la tu es Dakar waa fils de Dakar. Mhm. doomi ndakaaru yooyu nag ñoo war dem compétition ci wàllu mairie wala président wala wala wala assemblée nationale. kon sëriñ ndakaaru na am conscience ne moo njaboote ñëpp ñi fi ñëw barki démb ñi fi ñëw démb ak ñi fi ñëw tey te loi sénégalaise mooy régir ndakaaru ndakaaru du réew ci biir Sénégal loolu aussi foog ñu bàyyi ci xel nous avons une nation à sauvegarder parce que suba ci séeréer yi ne séeréer mooy falu siin Saalum Casamance joolaa yi ne mooy falu Casamance et cetera la nation sera fissurée et déchirée day voler en éclats et ça c'est pas souhaitable donc man foofu laa waxee moo wax ni wax bi engagé wu ma de deux ñi ko wax xëy ne dañu juum parce que am Abdoulaye Matar jàng na c'est un administrateur civil xam na les lois mm-hmm. imam ratib sax on pourrait dire que dafa xamul boo tax mu juum te xam naa ne xam na parce que c'est quelqu'un de très cultivé de très ouvert donc seen xol ak seen par politique moo leen poussé à ce que ñu def erreur bi ku juum nag da nga naan juum naa soo baaloo ñu baal la et on avance. d' accord léegi nag yéen da ngeen a daje woon. Euh, ngir mhm. communion ndax gis ngeen ne xaajali ko am na ngeen ne ñu fexee nu ñu àndee ngeen ñëw lii am ca xew ma. lana mhm. mën a doon njeexital yi justement ci relation diggante lébu yi ndax tey gis nañu jaraaf xëcceekoo dem fee euh, beneen grand sëriñ bi Pape Ibrahima Diagne itam dégg nañu kàddoom yi nga xam ne. jottali mhm. nga ñu ko àndul ci yëf yi. est ce que tey euh, réeroo bi du gën a tar ci biir lébu gi. Euh, lii tam aussi xam nga léeg-léeg moo tax nit da ngay rafet njor mm. histoire suy dox. léeg-léeg moom ay xew-xew yi nga xamante ne da ngay tiit foog ne day daaneel batiment bi. Mm. fekk moo koy consolider. moo tax olof di wax ne yàlla suy defar. Eh day mel ni ku yàq. Mm-hmm. waaw soo dee nit ku am baatin nag di doo tiit yenn tiit yi parce que da nga xëy na yàlla day defar parce que yenn choc yi ah. Mm. mooy remettre les choses à d'accord moo tax ma yaakaar ne xew-xew bii mën na bokk ci choc yooyu nga xamante ne nit ñi dañuy xaar mu yàq faf mu defar. Hmm. parce que su fekkente ne conscience taxaw na ego toxu na kilifa yi dinañu xam ne seen kilifteef moom moo nar a voler en éclat. Hmm. te kilifteef googu moom moo ko dañ la ko dénk. Hmm. looloo tax ma am sañ-sañu. jug wax ne sëriñ ndakaaru d'accorduma imam ratib d'accorduma parce que imama bi moo ko mag moom moomu ko hmm. sëriñ ndakaaru bi moo ko mag moom moomu ko man je travaille pour la sauvegarde du patrimoine mais nomba tànk yi ci patrimoine bi la bokk d'accord nomba tànk yi ci patrimoine yi ma war a sauvegarder ci la bokk moo tax liggéey naa avec le grand Serigne euh, Massamba Koki Diop liggéey naa ak le grand Serigne Bassirou Diagne. Mm. liggéey na ak euh, le juré Alioune Diagne Bor ñoom ñëpp euh, yàlla jël na leen yàlla na leen yërëm. amiin donc li ñuy sauvegarder c'est pas la personne de Ablaye Makhtar Diop ni la personne de Alioune Moussa Sam. mais le patrimoine que nous partageons qui nous appartient qui ne leur appartient pas. sëriñaa bi Ablaye Matar moomu ko daf ko am ñu ko yore démb moom mu yore ko tey dina ñeneen ñu ko yore suba. Mm-hmm. li ko mag mag ma nag moo ëpp solo ko moom. donc nit ku nekk da ngay fàtte sa individualité. Mm-hmm. nga xool patrimoine bi nga xamante ne moom lañu la dénk et tu l'as des anciens et tu dois transmettre ce patrimoine aux enfants intact plus beau que nañ la ko joxe woon. Mm-hmm. loolu mooy seen warugar loolu moo tax ñu jug taxaw ne leen li ñu leen dénk moo ëpp solo yéen ñiñ ko dénk. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga. leer na. koo dénk euh, tablettu nen. mu faqastalu nara a daanu te tablatuñ den bi mu ne ko tuddee nee na dama jël euh, jaaña dinañ fa foog ne dama bëgg a lekk. moo tax <laughs> ma jël nen. daal mi moo tax su fekkee ne dañu dem ci xare nga gis nit ku sacrifier boppam pour sauver la guerre et les troupes. Hmm. parce que danga naan nation bi moo ëpp importance. Mm-hmm. li may sauver moo ma ëpp importance looloo tax sax nit bu ne di ñeme dem guerre. Mm-hmm. sinon ku nekk sa bakkan ngay sauver. wala mm-hmm. mais tu dis que naa dem joxe sama bakkan pour sauver askan bi. pour sauver héritage bi. kon boog héritage bi moo ñu ëpp solo ñun ñëpp héritage bi moo ma ëpp solo moo ëpp solo Ablaye Matar moo ëpp solo Aline Moussa Samb moo ëpp solo keneen ak keneen ak keneen donc travaillons pour la sauvegarde de ce patrimoine la que nous devons transmettre à nos enfants demain. Mm -hmm. et ñoom nag suñu jàng histoire bi nag ñu fier ci ñun moo tax am naa yaakaar ne que ce choc la sera un réveil qui va nous permettre de nous ressaisir et de nous unir aussi et de travailler pour l'essentiel parce que fracture bi entre Ablaye Makhtar Pape Ibrahima Diagne et Jaraaf Youssou Ndour yàgg na. ah bon. yàgg mag xew bi. mais xew bi nag occasion la waroon nekk pour ñu régler mbir mi ni mu demee nii tam occasion la pour ñu saafara ko ba tey. Hmm. d'accord mm-hmm. ñu rafet ñu nangul la rafet njortu googu. waaye bëggoon mm-hmm. nañu ñëwaat tuuti ci démb. Euh, donte gis nañu ni ay maire yu bëri di ay lébu euh, nekkoon nañu ci bopp ndakaaru ku mel ni Mamadou Diop ku mel ni Pape Diop ak ñeneen ak ñeneen euh, est-ce que am na koo xam ni mës naa doon ci li nga xam njiital ndakaaru wala ci gox yu am solo ci lébu gi. ci euh, koo xam ni euh, lébu yi impliqué ñu torop peut-être ci faqastal ko ngir mu bañ caa yegg ñu anticiper mhm. un peu sur l'avenir parce que ñàkkul ne tey am na yeneen sénégalais yoo xam ne ñu ngi aspirer pour euh, nekk maire u Dakar Soham Wardini mu fi nekk tey du doomu Ndakaaru Kaolack la cosaano mais moom peut-être ay circonstances moo ko fi indi mais keneen ku am ambition wu nekk ci boppu Ndakaaru mën naa gis lii am xëy na lu muy tiit wala lu muy ragal est-ce que tey communauté bi am nañu euh, retenu wu peut-être bàyyi ku askan bi bëgg moom mu dem te fekk na ñoom duñ ci dugal seen loxo maanaam defuñu ko eh, mbirum xeet depuis Mamadou Diop ba tey hmm. ñi fi falu maire yëpp Mamadou euh, Mamadou Diop kese moo ciy lébu d'accord Pape Diop déggoon nañu ne am na tuuti ay kii euh, non Pape Diop du lébu d'accord Mamadou Diop kese moo ciy lébu d'accord mais ñi fi falu yëpp lébu yi jàppale nañ leen Hmm, te duñu ay lébu. duñu ay lébu. d'accord kon du mbirum xeet. non du mbirum xeet mais attends Joseph Gomis nekk na maire de Dakar hmm. nekk na maire de Dakar lébu yee ko fal. te takkul ak ñoom fenn. non attends Saint-Louis la jógee nekk maire ñëw Dakar ñu fal ko fi maire Senghor lébu yi ñoo ko samp. attends mag ñi euh, gis nga ba ñuy fal Jal Diop. Hmm. sëriñ ndakaaru moom laa la nettali léegi ma Masamba Kooki mooy waajuram bu góor mhm. dafa xëccoo nguur jolof comme ni mu la ko waxee mhm. ku meer ñëw dakaar mu mer ñëw Dakar moom la ñuy wax ne moom mooy guddi jóob parce que bi muy ñëw guddi la ak si cëddeem mhm. ñu ne ko yow mu ne mën a guddi ndax kenn du tudd du yéexu tur guddi ñu dàkkantale ko guddi jóob ñu dalal ko cëddeem da temps boobu Dakar ñoo doon ootal pour nit ñi ñëw est-ce comprendre nga. waaw bi mu ñëwee ñu dalal ko ci dem may ko ngoone meng mu jur Jal Diop. mooy le premier sëriñ Ndakaaru te mën nga ne du lébu benn tànk la. Mhm. te ba muy wut Jal gi pour nekk sëriñ Ndakaaru bi am na ay lébu pure souche yu doon wut comme moom compétir mais xam nga lan la mag yi wax. Hmm. ñu ne ku ñu àtte la ñuy wut. Hmm. te su fekkente dañ ko jëlee ci këru cosaanuk lébu su amee waa kër googu ku joteex beneen kër àttekat bi mën na ko faral. mbokkam lay faral. mbokkam lay faral kon nañ ko jox doxandéem bi. tu as vu mhm. ñu ne kon ndomba tànk bi nañ ko jox gat gi parce que farul du farax kenn dina am neutralité. gis nga ni ñuy fale. waaw boobu moo leen di guider ci lépp la nga xamante ne ñu ngi koy posé. Hmm. ba ci fal seeni kilifa yi bopp. ba ci fal seen kilifa bokk Serigne Dakar moo. ba ba léegi tey dañ ko jox gan gi. Hmm. ko jox gan gi. loolu moo am ba léegi wala démb la woon. <laughs> Euh, ba ba tey fal gi mu ngi si njóobeen tant que njóobeen mu ngi respecté charte ba Dakar waxoon. Hmm. donc loolu mooy dëgg est-ce que comprendre nga. waaw c'est ça l'esprit di lébu c'est-à-dire euh, euh, même tur yi lébu gi. Hmm. daf ko daf ko wane. ax ni ñu tuddee seen bopp ak ni ñu tuddee Ndakaaru le lébu c'est le guerrier belliqueux bu am jikkoy junxóob gaaw a mer gaaw a gedd te kenn nanguwul kenn ilif kenn. gaaw a xeex. waaw moo tax ñu ne lépp dañ koy waxtaane sa penc ba dañ koy pencoo kenn du fi chef suñu dajee sa penc ba ñëpp am droit à la parole ñëpp am droit joxe seen avis mm-hmm. donc loolu c'est ça qui caractérise le lébu ba pare ndakaaru nag wutaluñ ko waxuñu kër sàmba Ndiaye waxuñu kër kër kër kër kër kër diw waxuñu kër lii mm. dañu ne dëkk raw mm. ku fi dëkk raw nga mbay jaan cëddeem di ma nettali ne jaraaf faara furi ay sapay dañ ko laaj ne ko lan mooy lébu mu ne ku bëtt àllub kaañ mm. dugg ndakaaru nangu charte bi fi teg ne kenn du fi buur ñëpp yem lébu nga jara faalu furi ay sa pay moo waxoon loolu définition du lébu mu ne képp ku traversé am fitu traversé àllub kaañ parce que c' était une forêt dense mm. avec des fauves et tout borom fit moo koy moo traversé te forêt boobu moo nekkoon entre Thiès moo doon séparé Ndakaar Kajoor daanaka daal mu ne ku bëtt ku bëtt àll boobu hmm. ba agsi charte bi ñu fi teg nga nangu ko mooy ne kenn du seefu kenn te lépp dañ koy waxtaane pénc ba lébu nga c'est ça sa définition du lébu donc esprit boobu moo fi yàgg nekk moo tax euh, xeet bu ne nekk na fi maire mag ñi jàppale la ba Léopold Sédar Senghor ah waaw ndey ji réew Mbaye Diagne moo ko jàppale samp ko contre mm-hmm. contre contre contre Lamine Gueye mm-hmm. ñi dañu doon faraax Ngalanu ñi faraax Senghor ñi faraax keneen et il arrivait même que kilifa yu toog ne nit warul jël sa neen yëpp def ko ci benn benn benn benn benn panier ñu ne famille bi tas leen dugg leen ci parti yëpp bokk leen fépp. mais ku nekk liggéey lal askan bi loolu lañ la sant. volontairement. noonu lañ daan doxalee. daan nañ ko doxalee. Mhm. waaw ne bu ñëpp daje ci benn benn benn benn benn mbir parce que loolu baaxul ci kër. Mhm. kër du am benn kenu day am kenu yu bëri. Mhm. donc njaboot gi tas leen une communauté mën nañu daje daan na am. daan ne communauté bi tas leen dem aller faire de la politique mais ku nekk defal politique fa la nga gëm. Mhm. fa nga gëmee mais soo loo fa am ci ndam jàppaleel askan wi. Mhm. loolu daan na am ci mag ñi. d'accord waaw c'était politique pour que mooy li ñuy wax soo defee sa yëpp ci benn pañe. Mhm. su daanoo nga ñàkk. donc daal tëddee njaaxaanaay daal la xam ci kilifa. mooy sagu kilifa mooy tiitaru kilifa mooy indi égalité ci njaboot gi. parce que nag lébu yi dañu tas ci parti politique yi te ñoom ku dégg duñu wax nga xam ne dafa am ci parti bu ñu faral. waaw donc ils ont c'est le c'est ab la Ablaye Mbatar qui a parlé. c'est le militant euh, Imam Ratib qui a parlé. leer ñun topp ñu leen en tant que militant. Mm-hmm. kii dañ ko dénk culte bi kii ñu dénk ko aada bi. Mm-hmm. nañ toppatoo loolu. pour mën a dajale njaboot gi parce que njaboot gi nag dañu tas fépp. Mhm. ñii a ngi ci pouvoir bi ñii a ngi ci opposition bi te gën kenn gënul kenn. Mhm. te ëllëg nag il ne faut pas insulter l'avenir. Mhm. il kilifa su defee doxalee nii xeex xeex bu metti faf que mu jàkkaar lool gañee Ndakaaru lu muy def. su kooku nekkee fayukat du baax de. su amee xel bu gàtt comme moom. dina métti parce que su boobaa le risque c'est que les autres communautés qui sont à Dakar. Mmh. peuvent se liguer contre les Lébou. wala. waaw c'est une possibilité. ni xel da koy xalaat. Mhm. te loolu dañu war a prévenir pour bu mu am mukk. Mhm. doomi grand sëriñ day àndax doomi saraxule ba ca quartier ba. Mhm. di àndax doomi libaane bi ñuy ànd di foo di egaat. ñuy ànd di ñëw kër grand sëriñ mu jàppee leen ñoom ñëpp comme jabootam ñuy ànd di dem kër libaane bi mu jàppee leen ñoom ñëpp comme jabootam ñu nekk dans l'égalité et dans la justice dans bon voisinage. Hmm. loolu la ñu soxla dakaar te man Abdou Khader Gueye ci loolu laay dox. est-ce que ñoom ñooñu itam euh, jaawalewuñu époque bi nga xam ni euh, lébu yi euh, doonte kilifteef administratif mu ngi fi woon waaye ñoom dañu nekkoon une communauté assez spéciale am lu mel ni seen xeetu gouvernement ma bëgg juste suñu ñëwaat ci période boobu ak xëy na impact bi mu mun a am tey si si si collectivité bi est-ce que jàpp ñu ne mhm. ba léegi ñoom ñu ngi ci gouvernement lébu gi en face bien sûr mais attends ñu ngi ci gouvernement ba tey kenn mënu ko bañ ah d'accord bon mais gouvernement boobu moo tax professeur Assane Sylla et proposé nañ ko dans la déclaration yi cadre yi waroon lire ci cérémonie bi hmm. euh, professeur Assane Sylla dafa woon nañ bind une charte culturelle de la communauté lébou de Dakar parce que euh, ba tubaab bi ñëwee ba samp drapeau hmm. lébu gi dañu commence continuer doxal seen pouvoir traditionnel mais le pouvoir politique traditionnel moom la tubaab bi nangu puisque ñoom colonisateur yi étaient très rusés ñu ne lépp luy affaire interne à la communauté bàyyi nañ ko pouvoir traditionnel bi mais lépp luy affaire externe pouvoir colonial bi téye na ko noonu lu tubaab bi naxanteex li buggi bu ñu am indépendance mais bi ñu amee indépendance dañu continuer fal ce pouvoir traditionnel là nous sommes devenus la République du Sénégal ndakaaru bokk ci république du Sénégal. Hmm. mais Senghor def ay réformes ñi ko fi topp yëpp def ay réformes yi nga xamante ne pouvoir traditionnel bi dañ ko nangul lu bëri ci moom. Hmm. mais man je dis que c'est pas grave xam nga lan mooy important pour le pouvoir traditionnel. Hmm. nga gérer la coutume. nga gérer la coutume. le patrimoine matériel et immatériel lébu patrimoine matériel bi bokk na ci les réserves foncière yi nga xamante ne ndakaaru moo ko moomal boppam mu fi. patrimoine matériel bi nekk na penc yi nga xamante ne lébu yi ñoo fa dëkk nekk na les villages traditionnels naka lañ leen di sàmmee aar leen hmm? plus le patrimoine na immatériel tout ce qu'il y a comme valeur lébu yi xale yi di réclamer tey notre culture notre vision du monde notre âme notre identité mais loolu lu ñu dénk le pouvoir traditionnel le pouvoir coutumier mais ba léegi dañuy dégg uh-huh. su fekkente ne le coup pouvoir coutumier. Mm-hmm. dafa sentir ne nangu nañu pouvoir politique bi yëpp. mu dem di ko wuti ci parti au pouvoir bi ba nekk fa militant mais yàq na boppam. Mm. est-ce que xam nga fi may waxee. xam naa fi ngay waxee. voilà donc su fekkee ne noonu lañ ko jàppee da def erreur parce que moo tax la le euh, Kadhafi Mouammar el Kadhafi. Mm. posé woon pour créer l'association des rois. des chefs traditionnels africains. Mm. parce qu'il a compris que ces chefs traditionnels am na rôle bu ñu mën a jouer te les chefs modernes mënuñu ko jouer c'était un visionnaire Kadhafi. Mm -hmm. il les a appelés en réunion Libye wax ak ñoom ñaax leen ne jouer leen rôle bi ngeen am na rôle ba nga xamante ne ñun président yi mënuñu ko jouer. Mhm. nos pays sont divisés il y a des guerres tribales des ethnies hmm? il ya des problèmes yi nga xam ne day am te yéen yéen a mën a def médiation bi pour régler ko. Mhm. surtout la confrontation politique entre le pouvoir et l'opposition. Mhm. Le fait pour le pouvoir de toujours vouloir s'agripper au pouvoir. Le fait pour l'opposition de, pou de vouloir décevoir avant heure le, le, le pouvoir. Mais toutes ces contradictions-là internes dans l'arène politique, kan ñan ko mën a arbitrer kilifa diine yeeg aada est-ce que ça. mais euh, pour ñu euh, mën ko arbitrer. Mhm. il faut que ñu observer une certaine neutralité. waaw nekk à équidistance parce que arbitre nag il faut mhm. les deux camps óolu deux camps yëpp dañuy xam ne arbitre bi ni ko maandu la. Mhm. tëddee na ñaaxaanaay amul ay erreur dina juger avec justice. am na fitu wax dëgg. Mhm. c'est ce rôle là que Abdou Aziz Sy Dabakh doon jouer Sénégal ba Sénégal yëpp nangu ko ko su waxee étudiants yi ñu def li mu wax su waxee en euh, syndicalistes yi ñu def lu ñu wax su waxee état ñu def lu ñu wax parce que toog na fii euh, euh, Xavier Mame Alhaji Malick député yi war voter pour abdu Diouf mu ne député yi bañ leen bu ñu leen voté loo n'importe quelle loi hmm. soo leen di voté loi bu leen Abdou Diouf jox seet leen seen diggante ak yàlla te ngeen xam ne ëllëg Dieu est le seul juge alayhi salaam bi ahkamil hakimin hmm. waaw mais loolu autorité politique bu am fitu euh, coutumier wala religieuse bu am fitu tenir ce discours là mais sa askan dañ lay óolu hmm. jour bu mu tenir discours boobu tout le Sénégal a applaudi même ñi nekk au pouvoir wax bi neexu leen mais xam nañ ne kii nitu dëgg la. parce que wax na leen dëgg ku am fitu wax dëgg pouvoir nag. Mhm. sa njaboot dañ lay óolu mais quand tu es autorité coutumière. Mhm. dem làqatu ci ginnaaw pouvoir saa waxee nga tàccu. Hmm, ñëw su booree décider ay candidat nga bëgg a ñëw taxawoon ko ne yoo laa faral et cetera et tout mais sa njaboot dañ lay xeeb. Mhm. suñ lay xeebee ça n'est fait de ton pouvoir. sànq wax nga ne Ndakaaru tey dëkk arc en la mais ba léegi dañuy dégg ñu naan lébu yi ñooy borom Ndakaaru est-ce que justement nekkuñu ci processus récupération ndax gis ne peut-être pouvoir politique bi tey nangu na lépp loo xam ni mooy responsabilité xëy na ñoom aada geeg cosaan geeg patrimoine bi ni nga ko waxee noonu moom moom lañu ñu fi desee est que du processus de récupération ma sërëxal ci tam beneen laaj ndax lébu gi tey euh, yëg nañu seen bopp ci taxawaay bi ndax problème mu suuf am nañ ko aéroport baa ngi ne waaye yoof ñu nga yuuxu jël nañ ko yëpp dagg def ko ay terrain jaay loolu yëpp nekk euh, benn genre perte de terrain pour communauté euh, lébu bi wala collectivité bi pour Ndakaaru ça dépend waaw gis nga lébu gi ñoo hmm. kooku moom kenn du ko parce que moom ndakaaru bi euh, <laughs> signifié wul ne que sa propriété la exclusive xam nga dañuy borom kër. Mm-hmm. Hmm? borom kër ça veut dire que tu es responsable de la maison. firiwul ne yaa ko moom contre les enfants. Mm. ou yaa ko moom contre ton épouse. yaay borom kër gi ça veut dire que tu es le premier responsable. d'accord olof la ñuy làkk est-ce que comprendre nga. Mm-hmm. suñu borom Touba c'est-à-dire il est le premier responsable et que l'autorité religieuse ci loxoom la ne wante du moom kenn moo dëkk Touba. Hmm? Mhm. du ko ko gëm rek moo dëkk Touba da ngay dem fekk fa Tijaan fekk fa Murit fekk fa kay c'est ouvert donc borom bi dañ koy relativiser lébu yi nag ñooy borom Ndakaaru parce que ñoo ko njëkk a dëkk si ñu fi ne tey hmm. ñoo fi jiitu village yu bëri ñoom ñoo ko gàjje ñoom ñoo ñoom ñoo gor dëkk ñoom ñoo accueillir ñi ñëw après. Hmm. mais am na ñu ñëw après ñi ko ñi ndakaaru nag ñi nga xamante ne ñoo ko dëkkee ñëpp ñoo ko bokk mais nag su ñu amee xel dañuy nangul lébu gi seen statut boobu de borom ndakaaru mu nekk les premiers responsables mm-hmm. parce que les valeurs coutumières traditionnelles et cetera et tout ñoom ñoo koy ñoom ñoo ko ñoom si seen loxo la ne loolu la borom bi di firi comme soo demee siin nga ne siin mooy séeréer yi ñooy borom siin saalu mm-hmm. kenn moo koy werante joolaa yi ñooy borom Casamance mais ce borom la dañ koy relativiser firiwul ne yow exclusivement yaa ko moom yaa fiy dogal yaa fiy def loolu neex non non mais borom boobu nag suñ ko xamee même ku yore état du Sénégal da ngay nangu loolu. Mm-hmm. Fuuta tukulóor yee ko dëkkee. Mm-hmm. ça veut pas dire ko ñoo fa nekk exclusivement am na ñu bëri mais ñoom ñooy sanc ñooy tenu yi. Mm-hmm. et primeur boobu dañ lañ ko war jox cër boobu dañ lañ ko war nangul même état suy séddale. dafa war xam loolu mu respecté ko. leer na loolu aussi c'est une réalité. maintenant euh, tu as de l'aéroport. waaw foncier bi problème bi foog nit ñi comprendre ko. Hmm. xam nga euh, Fatia dafa am lu metti lu dal waa Ndakaaru ku dëkk ci dëkk nga xam ne yaa nga ca dëkk ba euh, sa sa njaboot war nañu mën am kër ca dëkk ba. tey waa dakaar Dakar ñu am kër Dakar parce que réserve foncière traditionnelle yëpp jeex na avec la loi du domaine national. de Senghor état bi jël na lu bëri. loolu mu jël yëpp nag def ko séddale fàtte lébu gi. te lébu gee ci tegoon loxo dem. waaw euh, tubaab bi soxla aéroport mag ñi la waxtaanal ñu jox ko suuf yooyu mu def ko aéroport donc lépp gi dañ jàpp ne dañ ko abal tubaab bi. dañ ko abal état état sénégalais doontu ko doonu ko ci état français. Mhm. su ñu demee ba transférer aéroport yi suuf yi nga xamante ne dañ leen ko abaloon dañ ko war a jox delloo ñu leen ko abaloon. Mhm. c'est d'autant plus vrai que ko abaloon amuñu fu ñu dëkkee. Mhm. waa Ngor mënutu amatuñu possibilité am fa kër. Ngor fees na. Wakaam fees na. Yoff fees na. man maa ngi dëkk Cédéem mais mënu ma am kër Cédéem sama doom mënul am kër Cédéem est-ce que gis nga mbir situation mhm. boobu lan lay jur mhm. donc état bi dafa war xool ces population autochtones la naka laa leen di jàppale moo tax waa Ngor Wakaam Yoff jur na mais aéroport yi comme que suuf yi léegi libéré nañ ko jox ñu ko comme zone d'extension de nos village pour que suñuy doom am fu ñu dëkkee mhm. mais loolu c'est légitime mais léegi xam nga li gën a révolter population yi mooy nga xool suuf yooyu ñu koy paacoo di ko jox ay nit des privés. Mm. pour leur position sociale ou leur position politique c'est ça qui révolte les population hmm. et état bu nekk da nga war veiller ci situation boobu pour éviter d'être jugé comme étant injuste loolu moo révolté les jeunes de Ngor Wakam Yoff. Hmm. dégg naa sax que président def leen proposer des terres à Diass. Hmm. mille parcelles à Dias pour Yoff mille pour Wakam mille pour Ngor mais mu am ñu taxaw ne mais attends da ngeen ñu bëgg génn Ndakaaru mm, te ñu cosaanoo fi. te ñu cosaanoo fi léegi les terres de l'aéroport nga distribuer ko à des à d'autres personnes ay artistes ay musiciens ay mbër ay hommes politiques qui sont avec le pouvoir gis nga kilifa dafa war a respecter l'équité loolu mooy darajaam loolu mooy tiitaram moo tax. réclamations yi nga xamante ne lébu gi posé nañ ko mais c'est des réclamations justes xoolal le domaine maritime il a la loi sur le domaine maritime mais cette loi est violée par qui par l'État du Sénégal waxuñu bu fa kenn dëkk mais mooy ëtt ba nga xamante ne famille bi ñoo ko partagé kenn du tabax néeg ci ëtt parce que ëtt bi mooy permettre kër gi mu respirer hmm. ëtt bi moom la ñu dëkkee kër gi yëpp bokk kenn amul sañ-sañu ñëw ci ëtt ba. Hmm. tabax fa sa mbaar wala sa néeg. tu vas étouffer la maison et la famille sera en colère. Hmm. loolu moo ñu dal ci domaine maritime bi. même les lii de culte traditionnels lébu dañ ko occupé. Hmm. fi ñu doon di fa lii et cetera et tout mu ngi mel ni euh, bon c' est la tradition mais mu mel ni nga ñëw toj benn jàkk tabax fa leneen. c' une insulte aux musulmans. mais soo ñëwee jël benn lieu de culte nga privatiser ko. Mm. jël ko mais c'est une insulte et aux religions aux croyances traditionnelles. lool daf ñuy indi ci ci mbirum plage yi ñu privatiser itam wax naa ko mhm. ci ndorteel bi ñu dugg ci ñaareelu xaaj bi mhm. alors mhm. Euh, tey euh, plage yu bari fa lañ doon defee tuur yi pour lébu yi euh, ci boori géej gi géej googa tey ñu bari mënatuñ caa jote peut-être yeneen partie yoo xam ne jàpp nañu ne ay plage dangereuse lañu ndax courant ya fa nekk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ku fa sangoo mënees nga faa loru tey situation boobu noo ko jàngatee ak ban njeexital la am justement ci ci lébu surtout xam nga soo bëggee jiite ay nit da ngay leen di ëpp vision pour nga ëpp leen vision da nga leen di déglu parce que soo nekkee njiit kes ce que ça veut dire position njiit bi c'est-à-dire que yaay noppi ñëpp ñëppay ñëw wax la seen xalaat mm-hmm. mais ku ñëpp wax seen xalaat nga muus mm-hmm. soo doful soo santul Diop <laughs> hmm, bon je parle des Diop en général ah pas du grand Serigne Abdoulaye Matar Diop <laughs> hmm? eh. donc soo santul Diop mais yaa leen di gën a muus. et mhm. loolu moo lay permettre nga am vision. mais vision boobu moo lay permettre mu am mbir yi nga xamante ne di nga ko mën a gérer avec justice et équité. Mmh. mais tey jii soo xoolee lu xew Ndakaaru avec ces plages qu'on privatise mais tu te rends que état bi ñu ngi jooy la nga xamante ne ñoom ñooy cause bi. Mhm. c'est comme la brèche de Saint-Louis qui ouvre une brèche qui devient euh, benn kii kenn xamul nu mu doon et maintenant qui devient une menace nga war ko tëjaat en urgence parce que brèche bi la mu yàq mu ëpp la mu defar mm. suñu nee Ndakaaru dafa am ay plage yu baax am ay plage yu baaxul dangereuse pour les enfants mm-hmm. mais attends lan ngay def da ngay jël plage yu baax yi nga defar ko mm. yaatal ko plage yu óorul yi nga sécuriser ko mm-hmm. xale yi dem ci plage yu baax yi mm-hmm. mais soo jëlee plage yu baax yëpp ma jaay ko privatiser ko et cetera mais fu xale yi dem ci plage bu baaxul bi suñu labee kuy responsable bi kuy responsable bi ki tëj plage bu baax yi mooy responsable bi bien sûr et donc foofu la ñuy waxee ne vision moo amul dëkk itam ku ngi jiite ko danga koy xam bés naa la fi wax ne ndakaaru ñaari géej la am traditionnellement géej gu góor gi ak géej gu jigéen gi géej gu góor gi c'est la grande côte qui va jusqu'à Saint-Louis moo indi tur géejawaay ñu ne géej ga la woy la mer chantante ou bruissante ou qui a des vagues qui fait beaucoup de bruit mhm. mooy géej way ñu ne géej googu góor la dafa am xadar dafay mer dafay yuuxu mhm. moo tax lap fa yomba mu am la petite côte ñu ne mooy géej ga réew mooy indi turi géeréw mhm. c'est la mer calme doo fa dégg foofu cas de noyade ah waaw bariwul sur la petite côte là doo ko dégg ay Anse Bernard teeru Baye Sogui. Hmm. dem ba plage de Hann et tout c' est des plages parce que géej gi jigéen la. li tax ñu ne jigéen la mooy dafa dal dafa calme amul vague. Hmm? d' accord. donc loolu moo tax mag ñi xam ban géej la war a sangoo ak ban géej la ñu war a sangoo. Hmm. mu am moment ba nga xamante ne ñoom dañ ko doon wax ci seen langage géej gu góor gi dafa doxaani géej gu jigéen gi bu keneen xale dem géej. parce que géej gu góor gi dafa doxaani géej gu jigéen gi. maanaam. ba moment boobu. Hmm. dafay gën a yëngatu. d'accord xadaram day yokk mag ñi ne c'est parce que bu géej gu góor la ak jigéen. waaw ñu ne instant ba mu yëngoo. c'est hmm. parce que mu ngi dafa dem doxaani géej gu jigéen gi c'est une période de hmm. l'année. d'accord ñu ne bu benn xale dem géej bu benn xale dem géej géej gu góor gi dafa doxaani géej gu jigéen gi. parce que période boobu su ñaar fukki xale demee géej fukki yi dinañu dinañu lam. waaw. mais loolu foog nga xam ko. te yooyu xam-xam peut-être buñ koo doon jëfandikoo tey dana wàññi situation. bi ndax fan yii ñu weesu moom yëf yi na lool yan instant la géej gi gën a yëngu yan instant la géej gi di gën a labal ay nit. mais ñiy diriger réew mi xamuñu loolu malheureusement ñu ko xam parce que duñu déglu les détenteurs du du du savoir traditionnel am na moment yi nga xamante ne mag ñi dañ daan jóg dem dem am ay point ci géej gi ñuy def ay sarax. loola bokkul ci patrimoine xam-xam boobu. bi ngeen di sàmm bien sûr ci patrimoine bi la bokk mais ñoom soo leen waxee patrimoine faale wuñu la. léegi su fekkee ne même le pouvoir traditionnel ne s'occupe plus de patrimoine. Hmm. naka la ko pouvoir politique bi moderne bi di dañu jël tous les pouvoirs dañu phagocyté. Hmm. Hmm? dañu phagocyté tous les pouvoirs. lekk lépp et en phagocytant tous les pouvoirs ils se mettent eux-mêmes en danger parce que cette diversité là c'est une force c'est une richesse à préserver. lan moo tax ay UNESCO ga yi ay diversité culturelle këriñ këriñ di dox di préserver li ñu yàqoon yëpp. c'est parce qu'ils se sont rendu compte que ce patrimoine là fait la force de l'humanité et des décisions politiques yi ñuy jël la disparition de ce patrimoine là day entraîner ay guerres day entraîner des secousses économiques fortes parce que am na comportement économique yi nga xamante ne mais c'est les lois traditionnelles ñoo koy déterminer euh, fàccam d'accord attends les lois religieuses du Sénégal am na yenn yenn transformation économique yi nga xam soo ko bëggee def Sénégal foog nga waxaax le pouvoir religieux. Mm-hmm. yenn décision économique soo koy bët jël soo waxul ak ñoom du dox. yenn décision politique yi soo koy jël da ngay waxtaan ak le pouvoir traditionnel parce que y a des et des croyances yi ñu mën a yëngal pour faire adhérer les populations. kon découpage bi nii sax ñuy tudd di ko naat ci ci ci noonee lañu ko war a defee. jiital ci tout se mais xoolal Ndakaaru par exemple dañoo euh, euh, dañuy wax zone de captage mais zone de captage bi fii lañ ko fekkoon c'était traditionnel moom fi ndoxu Ndakaaru yi doon daje. mais soo ñëwee euh, bërëb yi ndoxu Ndakaaru yi doon daje yëpp nga sëkk ko. inondation am nga nga taf sa gémmiñ di yuuxu. <laughs> waaw boo laajoon ñu fi ne woon démb doo ko def. waaw la brèche de Saint-Louis là c'est la même chose bu ñu ubbi brèche bi wax waxtaanuñu ak waa Ndar. Hmm. suñu waxtaanoo nag le pouvoir traditionnel de Saint-Louis dinañ wax ne lii ngeen ubbi baaxul parce que fa ndox daan jaar. soo fa demee. ndox du bàyyi yoonam. Ah, fekk fa tepp tepp. Mm-hmm. Hmm? mooy li ab kii doon wax rek nga ñëw fekk dëkk ñu tuddee ko waxinaan <laughs> benn bërëb ñu tuddee ko waxinaan nga dëkk xam nga tax nit mag yi tuddee ko waxinaan <laughs> mooy bu fi dëkk. nab bi dafa jege. dafa jege. Mm-hmm. yow nga ñëw construire fa des cités mu inoon ne nga taf sa gémmiñ naan qu'est-ce qui s'est passé mais tu as été bête <laughs> ou aveugle. Mm-hmm. parce que mag ñi ñu daan dëkkee lépp lu ñu doon gérer. ku dëkk dëkk da nga jàkkaarloo dëkk jat dëkk ba. Hmm. xeexax dëkk ba ba daan ko looloo dal lebu yi. Hmm. ñu xam ndakaaru comme ni bawol bawol yi xamee bawol. Hmm. comme ni waalo waalo yi xamee waalo. comme ni siin siin yi xamee saalum. donc soo ñëwee ca dëkk ba yow mi mujj ñëw. nga jugee Fatick. wala Casamance ñu di fal la président de la République soo demee sa dëkk ba décision boo fay jël ol waa dëkk ba. waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom. di wax la démb ak barki démb ak ak lu doxul. ak li nga xamante ne fii baaxu fi parce que dëkk bu nekk am na la fa baax. Mm-hmm. am na la fa baaxul. Mm-hmm. moom la wax kenn dëkk dafa am bët am tànk am loxo am nopp. Mm-hmm. xamoo fu bët bi nekk xamoo fu tànk bi nekk fa xamoo fu loxo bi nekk nga bëgg a jiite dëkk bi nu muy demee. <laughs> laajal nit ki ne ko ana bëtu dëkk bi. mu ne la mu ngi nii. nga ne ko ana dëkk bi mu ne mu ngi nii. nga lu bët di bañ. lu tànk di bañ su ko xamee dina mën a dem. Mhm. mais xamoo bët ba xamoo lu muy bañ. waaw nee nañ ko la jiitu ci nekk bu lëndam moo lay wax fooy teg sa tànk. jërëjëf te nag mag ñi de mhm. souvent traditionnel la dañ koy dëxëñ. ci ay ci ay ci ay. tur ak ñoom seen fu mel ni waqi naa nag yooyee. voilà ci ay tur ci ay léeb. Mhm. léeb bu nekk am na lu muy firi. dëgg compte bu nekk am na lu muy firi. xale ba demoon géeju ndaayaan am na lu muy firi. yow nga dem ndaayaan bëgg fa def lu la neex. te xamoo la fa daloon xale ba demoon géeju ndaayaan. wala firi luñ la ñu ne la xale ba demoon géeju ndaayaan xol baa ngi. Hmm. kon yow mi bëgg a dem ndaayaan. Hmm. fàttalikul la dala ba dem daloon xale ba demoon géeju ndaayaan. Hmm. balaa mu laa dal. parce dégg nga ma. dégg naa la jërëjëf ah, Abdou ah, Khadre <laughs> jërëjëf lii moo nekkoon démb ak tey ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, di am mbégte saa su nekk waxtaan ak yow ndax ñu delloo démb euh, ñu jàng itam lu bari ci surtout wàllu aada ak cosaan ndax itam nag lu ñu mën a wax it lébu yi tey euh, ku ñëw ndakaaru ñoo la war a wax fi nga war a toog ndax ñoom lañ fi fekk ñu ngi lay gërëm di la encourager ci liggéey bi ngay def ngir sauvegarde patrimoine bi di la gërëm bu baax a baax aussi ci disponibilité bi pour Rewmi FM jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. kon mbokk yi li nekkoon seen émission démb ak tey ñu leen di gërëm bu baax a baax ci ànd beek ñun dimanche bu jot ci waxtu bi gërëm Diaw jallo mu ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam ngoom la woon ci kàddu gi ñu doon dalal Abdou Khadre gay njiital ONG EMAD dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaan ak keneen ci leneen jaa ngeen jëf ñu yendoog jàmm.